bés bu ne. bile soxna nag am juróom fukki at ak lu teg moo ngi fàttali ko li ko daloon loolee waral nekk mu daal di fiy jëmmal lu yees. palanteer yi li mu nekk ci suuf yëpp dama ko kuulee ci biir ndax moo la ci génne ni daal li ñuy dëkkee. ci njiitalu farawu ndakaaru ak ñi nga xamante ne nag ay bonne volonté lañ dëkk ci quartier bi ay coppite daal nañ ko fi nemmeeku naam nag soxal toppatoo gi ak canalisation bi loole moo des. mais am na booy yoo xam ne ñu am volontaire dañuy dugg ci kër yi di ñu dimbale di dindi ndox mi. mais foog day am loolu moom mënul ñàkk ñi ñaan autorité yi tamit ñu jàppale ñu ci. avec Barthélémy xëy na tey ñëw na. changé pavage yi xam nga ak bi fi état defoon état bi fi jugee moom. yi daal nañu ko dimbali vidéel ni ko ba mu set waa te fii bu taayee ndax mi day gën di yéeg te foos yëpp la ubbi tamit yëpp di di ñëw ndaxu foos yi yëppay jaxasoo ndoxu taw bi te loolu baaxul suñu xale yi niñ ko daan amalee at bu nekk waajtaayu nawet bi ñoo ngi ciy def seen kéemtalaay kàttan dina àgg balaa nawet bi di daal di door yile canalisation yiñ fi defar ndaxam mën naa dékku ndox mi fi narata teewul benn yoon yi yeewoo fii ci xaar yàlla di yaakaar ne rek nawet gi dina jàll ci jàmm ba bañ leen yàqal lu bari